njëriñi panel discussion bi nga xamante ne amoon na fii di nga xamante ne mooy Newsrock High School moom nag dafa ñëw pour jàppale njàngum xale yi te si waxtaan boobu nag andi woon na ñii di nga xamante ne ñoom ñooy experts yi xamante ne xam nañ dara si waxtaan bi bii nag nekk na ñaareeli panel discussion bi nga xamante ne ñoom def nañ ko si diiri season bi te tamit defoon nañ lii di nga xamante ne mooy mooy ay théâtre bi nga xamante ne students yi ñoo ko defoon kii nga xamante ne mooy Burama Jammeh moom moo nekk former curriculum director moom na xamante ne moom mooy curriculum nga xamante ne yooyu ñoo am lii nga xamante ne mooy educational content loolu bokk na ci curriculum bi nga xamante ne moom lañ defar te suñu leen waxee political configuration moom moo nekk li nga xamante ne loolu lañ jël muy jànga jànga nag nekk na dara li nga xamante ne doomi aadama moo toog xool lii mi ne lii moom jànga te su ma leen naa exemple bi nga xamante ne mooy South Africa ñoom nag dañ daan jàngal seeni xale yi lii nga xamante ne moom mooy gënal nit ku weex ci kaw nit ku ñuul te loolu yëpp li ko waral mooy nit ki moo jël xalaatam wax loolu mooy jànga ki nga xamante ne mooy Loukoucha Sheriff moom moo nekk high commissioner bi jógee Sierra Leone si biir Gambia bi fii moom daal wax na ne dañu war a wéy ci lii di nga xamante ne moom loo nekk suñ curriculum si pour yombal njàng mi moom nag si biir waxtaan wax na ne xoolal lii di nga xamante ne moom moo nekk jàngale wàllum mbéy jàngalekat yi nag dañ dee bëgg a ki nga xamante ne moom mooy student bi pour mu xam lépp lu nekk si biir mbéy waaye tamit soo xoola si yeneen dëkka xale yi foofu noonu ku nekk dangaa xool lii di nga xamante ne loolu nga mun nga jàngal loolu noonu loolu moo yombal seen i jàng loolu moo tax examen su jotee ñoom ñuy jël ay A's ñun ñii di nga xamante ne ñun dañuy jàng yëpp ñu am ay 6 ak 10 te su paree gaay ñu ne ñun Gambie ak ak Sierra Leone nekkuñ di def lu baax si suñu wàllum jàng yi waaye tamit fàtte nañ ne lu war a def moom mooy pour yaatal suñu curriculum bi pour lii di nga xamante ne mooy jàng mun a yomba si suñu xale yi waaye sant yàlla nag kuréel bi ñu ooyee Ministry of Education ñoom nag commencé nañ di def loolu noonu Honorable Sitye Jatta nag moom nag wax na lii di nga xamante ne moom mooy jafe-jafe am si biir school yi moom daal wax na ne baaxul pour lii di nga xamante ne moom mooy eighty student yu nekk si biir classe surtout classe bi nga xamante ne ñoom science lañ leen dee jàngal mu ne loolu nag munta am benn jàngalkat jàngal lii di nga xamante ne mooy eighty student si biir classe loolu munta am te loolu dafa nekk dara li nga xamante ne dafa jafe-jafeel jàng bi si biir Gambie bi fii mu ne soo xoolee tamit si wàllum am bagage mu ne amuñ bagage si biir school yi te tamit bagage yu raw yu ñu am student yi suñu jàngee dañ koy bàyyi si biir school yi kon ñooñu nag suñ ñibbee kër la ñoo jàngee kii di nga xamante ne moom mooy minister of information moom daal joxe na lii di xamante ne moom mooy xalaatam si xone dañ war a xoolaat lii di nga xamante ne mooy policy yu ñu am si biir réew mi fii si biir waxtaan nag wax na ne nañu xoolaat si ñu policy te ñu xam ne dafa am doole torop si lii di nga xamante ne la ñoo jàng school ak lii di nga xamante ne lu la ñoo def pour ñu am certificate am liggéey tamit mu ne soo xoolee nag li nga xamante ne moom moo ko jaaxaloon nag moo nekk bu mu génnee school xalaat na torop coono si jàng lii di nga xamante ne moom mooy jàng làkki tubaab bi ak tamit ñu wax ne yow danga nga war a jàng làkka boobu noonu teg si nga passé exemple bi si jàng boobu noonu mu ne loolu nekk na dara li nga xamante ne dafa miiti torop mu ne waaye suñ xoolaatee nag si biir i Afrique fii ñun dañu war a def lii di nga xamante ne indi suñu laaka yi jàngale ko xale yi ci biir school yi pour jàng bi gën a yomba ñu soo senior secondary high school nag nekk na jàngukaay bi nga xamante ne mu ngi ci ay african dëkk yu bëri te tamit Ahmadiyya ñoom ñoo ko taxawal ñu soo senior secondary school nag moom nag mu ngi taxaw depuis mai 1970 te student ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa njëkk jàng ñoom ñu ngi commencé depuis septembre 1971 depuis loolu nag ñu sa nekk na school bi nga xamante ne dafa am taxawaay bu réew ci biir dëkk bi ci wàllum mun a jàngal xale